an yataqabbala minna wa minkum saalihul amal ñoo leen di fàttali ne bés ni mu doon yowmul jumaa di bésu ajjuma mu doon sangu yi bés yi mu doon bés yi nga xamante ne bokk na ci ya yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tegtal ngéneel ya nekk ci bés bi bari na lool waaye dañu deñ di leen fàttali ne la yonent bi ne ngéneelu bés bokk na ci ñuy julli ci moom sallallahu alayhi wa ndax mooy lañu ñu buur yàlla tabaraka sant ci alquraanul karim buur yàlla ne ñu inna allaha naka yàlla wa malaikatahu ak ay malaakaam yi yusalluuna ala nabi dañuy ñaanal yonent dañuy jokk yonent dañuy ñaanal xéewal ak mucc yonent bi sallallahu alayhi kon buur yàlla ne ñu ñu nit yaa ayyuha alladina aamanu yéen yàlla sallu alayhi na ngeen def ni ñun wa sallimu taslima wallahi seen julli ba ngeen di julli ci yonent bi na doon ñaan bay ànd ak nuyoo sallallahu alayhi wa tax na bés ni ki bokk na ci ngéneelu yowmul jumaa bisu àjjuma ngëneel ya fa nekk ci xadiisu an aws bun abi aws radiyallahu anhu jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bi ñu naan aws di doomu aws yal na ko buur yàlla gërëm aws di doomu aws nee na anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal naka suñu yonent wi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo neñu inna min afdali ayaamikum yowmal jumuati bokk na gën ci bés ci bési yay ñëw di jaar di jàll mooy bésu àjjuma di yowmal jumaa di bés ni ki tey yonent bi sallallahu alayhi wa am lu mu sant xeet wi mu ne ñu fa akthiru min alsalaati fiihi alayya mu ne ñu fa akthiru alayya min alsalaati fiihi ngelawaay na ngeen baril la ngeen di julli ci man yonentu bi na ngeen baril la ngeen di wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin ci bés bi waaw mu teg si mu ne ñu fa inna salaatakum maarudatun alayya ndax loolu ngeen di jëf di ko jëmale ci man kado yooyu ngeen may yónnee di julli ba ngeen di julli ci man di salaatu ala nabi ya ngeen may yónnee dañ ma koy gaaral te dañ ma koy jox kon képp ko bëgg a jox kado yonent bi sallallahu alayhi wa bés bi na salaatu ala nabi doon sa singamu gémmiñ na salaatu ala nabi doon la ngay patti patti si say tuuñ waaye na salaatu ala nabi nekk sa guréwu gémmiñ na salaatu ala nabi di gën a joll ci sa gémmiñ sallallahu alayhi wa sallam ndegem kado boobu lañ koy yéggee jox ko ko won ko ne sa jaam diw sàngam di doomu diw sàngam de moo la jox kado bi ni mel kado ju toll ni sa jaamu yàlla ci sa xeet diw sàngam di doomu diw sàngam moo la yónnee lii kon nañ leen bëril salaatu ala nabi ci bés bi bokk na ci ngeneelu yowmul jumaa bis bu ñu nekk ni ci xadiisu abdullahi ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal afdalu salawaati inda allahi salaatul jumuati salaatul jamaa aw salaatu subhi yowmul jumuati fi jamaa xadiisun saxiix axrajahu al albani fi saxiix jaamia mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot xadiisu abdullahi bun umar radiallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu afdalu salawaati inda allahi salaatu subhi yowmul fi jamaa gën ci waxtu julli fa yàlla mooy waxtu julli suba mooy waxtu su néew julliti yàlla yang julli waxtu julli woowu ci jàkk ji yonentu bi nee na gën ci julli fa yàlla mooy julli suba ci jàkka ji bésu arjuma julli ba jullit bi di joxe ci jàkka ja yowmul jumaa bésu arjuma waxtu yi suba ba jullit yi di joxe ci jàkk ji yonent bi nee na waxtu woowu moo gën ci waxtu yi julli ya yàlla sopp fa moom sallallahu alayhi wa xanaa du ñàkk am kuy laaj ne salaatu ala nabi boobu ñuy def de ana luy doon résultat bi ana waral la nga xamante ne mooy njëriñ bi moo ne yàlla moo ñu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yàlla ak malaakaam yu tedd yi ñu ngi ñaanal yenentu bi ñoo ngi ñaanal yenentu du julli ci moom ñoo ngi ñaanal yenentu bi di ko wàcceel ay xéewal ak mucc kon bu ñu yàlla ne yenit na ngeen def ni ñun yiw lañu yàlla bëggal ci ñaan ba ñuy ñaanal yonent buñ ko defee yokkul yonent bi dara buñ ko bañee def tamit wàññiwu ko dara waaye dafa fekk ne rekk boo demee xool ci tafsirul bagawi mandunuun ci aaya 56 ci suratul ahzab ba aaya bi nekk e inna allahu malaikatahu yusalluna ala nabi wa qiila salaatun min allahi rahmatan ñaan ba yàlla di wàccee ci yenentu bi ñu ne loolu xéewal waaw ñaan ba yàlla di ñaanal yenentu bi ñu ne loolu xéewal la yiw la ci yenentu bi jàmm la ci yenentu bi wa min al malaikatu lay malaaka yi di ñaanal yonentu bi loolu jéggalaa koor ba ñuy sàkku fa yàlla la ngir mu defal ko yonentu kon yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi yéen ñi gëm yàlla wital yàlla yàlla ne yenit na ko ñaanal ay udu'u lahu bi rahmatin wa sallimu tasliman julli ba ngeen di julli ci yonent bi mooy na ngeen ko ñaanal yàlla yal ko yàlla yokk yirmande te ngeen nuyu ko nuyoo bi nga xamante ne mooy assalaamu alayka ya rasulallah assalaamu alayka ya nabiyallah assalaamu alayka ya habiballah assalaamu alayka ya xayri xalqillah xeetu nuyoo yu noonu la ñuy nuyoo yonent bi alayhi afdalu salaatu wa azka taslima kon yàlla mooy njëkk nekk di dotti xéwal ba nekk fa moom jëmmali ko ci yonenteem malaaka yi ñoom dañuy ñaan yàlla yan yàlla yaatal njiggalam ci yonent bi kon bu fekkente ne yàlla ak malaaka mi seen nekkin ci yonent bi a ah, bu fekkente ne loolu rekk war na doy bu dee loolu rekk dañ ne loolu war na doy ndax yàlla la mu nekkee keneen mënuta nekke loole ndax danga koy gàttañlu danga koy tële waaye malaaka yi tamit lu ñu nekkee keneen mënuta nekkee noonu ndax malaaka yi ay robo lañ kon yow doomu aadama ba matul dara loof bay bëgg dee ñàkk solo ñàkk kattan moo tax ñu tëggal la yow format bi nga xamante ni sa bos du niroo comme bu yàlla sa bos du niroo kom yu malaaka yi kon yow doomu aadama bi dañ leen ne ay ud'u lahu bi rahmatin nanka ñaanal yërmande bay jóge ko fa yàlla wa sallimu tasliman nan ko nuyu nuyu bi nga xamante ne ay xayyuhu bi taxiyatil islaam ni ngeen ko nuyu nuyu bi nga xamante ne mooy nuyu islaam mooy format nuyu yañ leen wax sànq assalaamu alayka ya rasulallah wasalaatu wasalaamu alayka ya habiballah assalaatu salaamu alayka ya nabiyallah assalaatu wassalaamu alayka ya xayri xalqillah xëytu nuyoo yi la yàlla wax ne képp ku kudut mun a ñaanal yàlla yërmande nanga ko nuyo nuyoo islaam bu fekkente ne mun nga boole ñaari nag di ko wax ne allahumma salli ala sayyidina muhammad yan na nga yàlla yan yàlla yokk wàccee xéewal ak yërmande ci suñu yonent bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan boobu nga ñaanal yonent bi ñu ne bal tengs la danga jox yonent bi ñu delloo la ko fii ci àddina wala ñu gardel la ko ëllëg bis ñu fay la ko bu dee munoo def li ni mel nanga ko islaam moo tax mu ne ay xayyuhu bi tahiyatil islaam na ngeen ko nuyoo nuyoo islaam mooy assalaatu wassalaamu alayka ya rasulullah wassalaatu wassalaamu alayka ya nabiyallah lii la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sant ne ñu na ngeen ko def yowmul jumaa su ko defee ñu nit ñu àndil leen ko ci pincum daara Rewmi FM 97.5 ñu nar ko wéttalanteeg mbokk auditeurs yi ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji yan nañu yàlla may dégg ak topp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wasalaatu wasalaamu alayka ya rasulullah assalaatu wasalaamu alayka ya nabiyallah sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi tudd yàlla dafa am importance ci dundu doomu aadama ba tax na qaala rabiul bun anas rabi bun anas radiyallahu rahimahullahu moom kenn la ci taabiuna ña toppoon ci génération sahaaba yi rahimahullahu taala rahmatan wasia rabi bun anas nee na xubbullahu kasratu zikrihi nee na màndargay yàlla day tegtal ci tur ci bëri yaa ngi di ko tudd waaw alaamatu xubbullah kasaratu zikrihi nee na màndarga bay wone ne jaam ku sopp yàlla la ku bëgg yàlla la nee na danga koy xàmmee ci na muy bëril di tudd yàlla nee na fa innaka laa tuxibu cheyan illa illaa aktharta min zikrihi nee na yow doomu aadama bi de doo bëgg dara lu dul da ngay noo koy tudd waaw te loolu mooy li am nit ki bu dee dafa bëgg lenn dakaa sopp mu bëgg ko ci xolam saa yu mu toogee fépp fu mu toog day tudd loolee mu bëgg ci xolam waaw sama lii sama laa sama oto bi sama kër gi sama compte bancaire bi sama sama waaw loolu muy wax sama lii sama laa fu mu toog tudd loolu mu bëgg ci xolam loolu day wone màndargaay ne loolu muy tudd caaxaanewu ko képp ku ko caaxaanee sax <laughs> boo muy tuut di ngeen di ngeen tongoo wala ngeen juunoo ci gisin waaw moo tax mu ne alaamatu xubbullah kasratu zikrihi màndarga bay tegtal ne yow de ko bëgg yàlla nga dafa war a feeñ ci li yi bëril di tudd yàlla mu teg si ne fa innaka laa tuhibbu shay'an ndax li fi nekk de kenn du fi nekk di bëgg dara dudut illaa aktharta yi amul dara la waay di sopp ci xolam mu sax ci xolam lu dut dina bari lum koy tudd saasu ne ba tax na ñu nit xol boobu nga xamante ne moo fi nekk di bëgg di bañ waaye yan na yàlla tàggat suñu xol ak suñu xel ak suñuy cër mu wommat ko jëmali ko ci sopp yàlla ak topp yàlla ba tax na tey ñu bëgg leen andil beneen xol bi nga xamante ne mooy alqalbun taqiy wa huwa alladi yuaddimu sha'air allah nee na xol bi nga xamante ne mooy xol ba tag ko ko ragal yàlla xol bi nga xamante ne day suur yàlla ci lépp xool bi nga xamante ne moo fi nekk di bàyyi xel bés yay ñëw di jaar di jàll xool bi nga xamante ne mooy ràññitle ne tey mooy yëmul jumaa kon ngéneel ba nekk ci yëmul jumaa dina ko waajalal alxamis si guddi nga xamante ne bu ñu noddee fajar yonentu bi nee na gën ci waxtu yu julli mooy la jullit bi di joxe ci jàkka ji ci mbooloo bi bésu àjjuma waaw waxtu yi fajar ba jullit bi di joxe ci mbooloo bi bésu àjjuma ndegam yonent bi nee na mooy gën ci julli fa yàlla kon dina bàyyi xel fajar ci àjjuma dina ma fekk ma taxaw ci première sàppe bi xol buy xelaatee nii xol boobu mooy xalbun taqi mooy xol bu takkook ragal yàlla xol bi nga xamante ne mooy segg ne yonent bi daf ñu ne gin ci bés yay ñëw di jaar di jàll bokk na ci yowmul jumaa di bésu juma di bés ni ki tey mu sant ñu ne fa ak akthiru alayya min fii fiihi fa inna salaatakum maarudatun alayya na ngeen bari la ngeen di julli ci man na ngeen bari la ngeen may ñaanal ndax kado boobu ngeen may jox dañ ma koy andil dañ ma koy présenté kon tey di bésu àjjuma du ma def dara lu dut salaatu ala nabi nu mu gën a baree nu mu gën a sakkanee nu mu gën a takarnaase nu mu gën a jébbee man ci loolu dong lay nekk sallallahu alayhi wa ndigle bi mu joxe ci ngéneelu yowmul jumaa yow mi lamboo qalbun taqi xol bu laab xol bu takkook ragal yàlla nii ngay xalaate yowmul jumaa ngéneel ba nekk bésu àjjuma bokkoon na ci di jàng alquran rawatina suratul kahf yonent bi ngëneel bu mu ci wax yow mi làmboo qalbun taqi yow mi làmboo xol bu ragal yàlla xol bu bàyyi xel yàlla yow yay xelaat lii yowmul jumaa moo tax mu ne al qalbun taqi xol bi nga xamante ne dafa takko ko ragal yàlla bàyyi xel yàlla suuraale yàlla xam ne yàlla ngi contrôler jëmm ba mu nekk ñu ne wa huwa alladi yuazimu sha'air allah ñu ne xol boobu mooy xol bi nga xamante ne mooy wattu lépp li nga xamante ne espace la ba yàlla reconnaître mu doon territoire ya yàlla sellalal boppam xol boobu mooy màggal béréb yooye moo tax boo demee xool ca suratul xaj suratul xaj di nga fa fekk buur yàlla di joxe màndargaay ñu takkoo xol bi nga xamante ne mooy qalbun taqi yàlla ne daalika wa man yucaddimu sha'aa'ir allah fa innaha min taqwa alqulub ci aaya 32 ci suratul hajj buur yàlla subhaanahu wa taala mbokk yi moo ngi ni duñu woon qalbul taqi qalbun taqi xol bu takkook ragal yàlla xol bu bàyyi xel yàlla buur yàlla nee na xol boobu mooy daalika nii dong la mel daalika nii lañ koy defee wa man yuaddimu sha'air allah képp ku respecté képp ku ormal képp ku bàyyi xel jox gëdd buqaatu sharifa ya nekk makka ak madiina ak yeneen béréb yu sell yi nga xamante ne buur yàlla neena bërëb yooyu maa leen tànnal sama bopp maa leen suwaasiral sama bopp képp ku màggal béréb yooyee nga jox ko gëdd nga bàyyi xel béréb yu sell yooyee yàlla nee na fa inna loolu boroom xol bu takook ragal yàlla def noone ah buur yàlla moola tabal garanti tabal la garaat bi nga xamante ne moom la aaya bi jeexee moo tax buur yàlla ne si njeexantalu aaya bi fa innaha min taqwal quluub loolu day màndargaay ne jëmm ji màggal bërëb yu sell ya yàlla suwaasiiral boppam de loolu day wone ne jëmm ji xol bu ragal yàlla moo nekk ci jëmm ji waaw jëmm ji ormal buqaatu sharifa yi bërëb ya yàlla tànnal boppam mu doon béréb yu sell yi képp ku di ko màggal doo ko salfaañe doo fa wilipande doo ñàkk kerse nit bérëb yooyee doo fa nekkee nekkin bu tegginiwul képp ku fay nekk nekkin bu teggine doo yëkkati sa baat doo yuuxu doo fa jël foto doo fa nekk di jël selfi ak li yalla nee na màndargay kookee day wone ne xol bu takkook ragal yàlla moo nekk ci jëmm jooju kon ñu gis ne ndekkete daalika noonu la mel wa man yuazimu képp ku di ormal sha'air allah béréb ya yàlla tànnal boppam yàlla ne fa innaha ku meloo nii di màggal di teral di jox gëdd béréb yu yàlla tànnal boppam yàlla ne képp ku meloo noonu fa innaha loolu day wone ne min taqwal quluub jëmm jooju xol bu ragal yàlla nekk ci jëmm jooju nga déggee ci ne yow mi yàlla wërsëgal nga yore méccam peinture nga la waaye na nga campagnal néegu yàlla ay peinture yoo xamante ne boo ko majaalee ci borom barke yi bañ la jox njigu peinture ba war a mën a peinture jàkka ja na nga jël sa métier bi yàlla dénk nga di ko dundee nga am volonte bu toll nii nga peinture néegu yàlla yi ba léegi ñu dugal ko dalika wa man yuadimu sha'air allah fa innaha min taqwa al qulub rekk la ko yàlla di melale képp ku di màggal képp ku di aji ormal béréb ya yàlla tànnal boppam yu mel ni jàkka yeeg jumaa yi yàlla neena na màndargay jëmm jooju day wone ne xol bu takkook ragal yàlla moo nekk ci jëmm jooju waaye noonu la ñuy ñaaxee yow dënk yàlla dénk méccum menuisier méccum menuiserie yow mi yàlla dénk ngay liggéey ci bant ci ay dënk waaye xoolal jàkk ja la fa war nekk lu ñoŋ nga daldi def say bilan jël foyer boobu nga def sa bilan yóbbul ko benn borom barke walla joxe la ngay jëndee matériel yi demal nga jël sa volonté métier bi la yàlla dénk nga di si suturlu waaye na nga jël sa volonté métier boobu daldi defar lépp loo xamante ni liggéeyu banta la ci jàkka jooju su ko defee nga bokk ci dhalika wa man yuaddimu sha'air fa innaha min taqwal quluub noonu rekk laa koy defee man yàlla képp ku di aji màggal képp ku di ormal béréb yi yama tànnal sama bopp ma ko sama bopp loolu day wone ne jëmm jooju xol bu takkook ragal yàlla moo nekk ci jëmm jooju waaye yow mi nga xamante ne mën ngaa jël facture jàkk ji moo xam facture ndox la wala facture courant nga yóbbul ko sama gaay ñi ma xam ñu doon borom barke ne leen ah jullit ñi de fii lañuy laabo fii lañuy sete waaye ci courant bi lañuy ñuy baatu nodd pour yëgal jullit ñi ne waxtu yu julli sangam jot na waaye képp ku génn àddina buñ la yóbbu ci morgo bi ci kilim bañ fay taal la nga xamante ne moo koy taal di courant ba koy doxal facture courant ba nekk nii waaye ndox ba jullit yi di jàpp di julli facture ndox baa nekk nii képp ku nekkal jàkka ja courtier ngay maajaalal facture jàkka ja wala ngay maajaalal facture jàkka ja moo xam facture courant la wala facture ndox yàlla ne noonu rek lay jëflanteeg jëmm jooju daalika nii rek laa koy defee wa man yuazzimu képp di aji màggal di aji teral sha'airallah bérëb yu yàlla tànnal boppam fa innaha loolu mooy min taqwal quluub loolu day wone màndargay xol bu takko ragal yàlla moo nekk ci jëmm ji waaye noonu la ñuy ñaaxee képp koo xamante ne fas yéene nga maajalal jàkka joo xamante ne moket yi dañoo rouge moket yi dañoo froissé bassin yi baaxatuñu satala toj nañu waaye bidon ya ñuy rootee ndox dara doxatu si waaye képp koo xamante ne sànni nga zaaru mbaar fa jullit yi di julli ñuy taxaw si naaj bi wala jamonoy nawet ñuy tooy képp ku leen fa amélioreel anam bi nga xamante ne anam bu mucc ayib la ba jant bi du leen lor wala bu ndox ñëwee duñu tooy képp ku taxawee béréb bu sell boobu anam bu mucc woowu yàlla ne daalika nii rek laa koy tabale garaat moom kooku noonu wa man yuazimu képp ku aji màggal képp ku di aji respecté képp ku di aji ormal sha'airallahi bérëb ya yàlla tànnal boppam bur yàlla ne fa innaha loolu de min taqwal qulub day wone mandargaay xol bu takkook ragal yàlla moo nekk ci jëmm jooju bari na bari na bari na xataa nga jël xamante ne xeer wu tuuti la walla bant cure lu toll ni cure nga jëlee ko ci jàkka ji ci jëlee ko ci béréb yu sell ya yàlla ormal yàlla ne ku def loolee noonu laa lay tabbalee garaat bi nga xamante ne dinga bokk ci ñetta ragal yàlla moo tax mu ne daalika noonu laa koy defee wa man yuaddimu képp ku di màggal ku ku di aji taxawee képp ku taxawee màggal sha'airallah béréb yu yàlla tànnal boppam yàlla neena na taxawee woowu nga taxawee foofu bi taxawaay bi nekk taxawaay bu mucc ayib ah fa innaha xamal ne loolu nga nekkee foofu loolu nga nekkee sama buqaatu sharifa yooyu loolu nga nekke sama béréb yu sell yooyu ma tànnal sama bopp yow xamal ne dinaa la boole fa innaha min taqwal quluub dinaa la boole ci ñi nga xamante ne man yàlla may seede ne ñi kat dañoo lamboo ko ragal yàlla seen biir xol kon loolu benn la ci màndargaay xol yeñ wax ne alquran da kaa fois ci téere bi tey ñu yemande yenn yéen ci xalbun taqi xol bi nga xamante ne dafa lam mbokk ragal yàlla ñu ne wa huwa alladi yuaddimu sha'air allah mooy xol boo xamante ne mooy xol bu saa su ne day màggal béréb yu sell ya yàlla tànnal boppam kon ñoo koy ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala di ko ne la yonentu bi doon ñaan rekk allahumma musarrif alqulub sarrif qulubana ala taatik allahumma musarrif alqulub sarrif qulubana la ñaan bi di tekki mooy buur yàlla yow miy wëlbati xol yi yow miy jël yi jëlee ko fu la neex ko fa la ñu ngi lay ñaan yàlla booy wëlbati xolu doomu aadama yi nga wëlbati suñu xol jëmale ko ci topp la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 amin ya rabbal alamin di leen wax ne jumaa tayiba mubaarak yal nañu yàlla may dégg ak topp allahumma ya rabbi aati nufuusanaa taqwaaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha fa nicma almawla wa nicma alnasir allahumma ixfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina wa aslih allahumma aimmatana wa wulaata umuurina amin ya rabbal alamin